أبى الله أن أصوم إلى غير شيخنا إمامهما ميزاك أحمد التجاني بكي غنا بن تامبلي سيني وقت تورو بروم سبحانه وتعالى ديكو سانت موم ميغا خامني موم موي بروم بنديف di julli di sëlmal ci ki nga xamne mom moy mooy yërmande di suñ sang bi yenen tibi sallahu alayhi wa sallam ak wa karam yu labi gëwna lolu mbokk yi borom bi subhanahu wa taala da fay wax ci alquran ni di ko wax yenen tibi di ñu ko wax ñun ñep net bés bes tay bi ci la leen motalil sen diine motali sama xewal ci yéen suñ làng yi nak mën naa am amul ñaari baat yooyu yàlla fe mu ngi utiliser akmaltu buñ waxe akmaltu ci arab moy lo xamne amul lenn luñ ci mëna yokkat jeexna mais bu ñu waxee atmamtu nag lu mat la mais toujours am na leneen loo xam ne mun na cee yokkat moo tax mu ne ak akmaltu lakum diinakum diine ji mat na wa atmamtu alaykum niamati xéewal yi moom day gën a yaatu donte ñoom seen jamono am na seen xéwal matoon na ci ñoom mais ñun toujours suñuy xéwal day gën a ubbeeku mu ne ma gërëm diine ji nga xam ne nii moom mooy lislaam def ko muy seen diine bu ñu demee ci téere bi nga xam ne mooy mu watta bu mu imam malik imam malik mu ngi solo benn xadis boo xam ne mu ngi ko jëlee ci nafia mu ne dafa dégg Ablaay ibnu Omar di ñaan yàlla naan ko yow yàlla maa ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yaa ne ñaan leen ma ma nangul leen yow mi nga xam ne ñaan nga nangul ko maa ngi lay ñaan comme ni nga ma gindee ba ma nekk julit nekk ci diine lislaam bu ko dindi ci man mukk yalla nag ma ci saxal ba ba heure boo may rey ma nekk julit yàlla ñu ko yàlla defal ñun ñëpp kon lislaam dafa ñëw ngir jàngal ñu ñun ñëpp nan la ñu nekkee nit yàlla sànniwuñu mais daf ñoo jàngal nan la ñuy nit te pour nga nek nit ñaari ponku kessé la benn bi moy da ngay fexé djubok sa borom te lool nan nga nan lañ koy nekké moy nga fexé nek jaamu yalla benen ponku bi nak moy nga nek ko xamné ne da ngay jëriñ société bi kep ko xamné ne ak sa borom wala nga nek ko xamné ne jëriñ société bi mu nga bok ci mbinde fi mais tok ci nit ñi nit deug dëgg mooy ku jubóog boromam ba paré di jëriñ aduna bi kon l'islam école la bo xamné école yar la ak jikko école la boo xam ne jullit ñi dañ fay jàngee ponki jikko diine la joo xam ne dafa ñëw ngir yëkkati jikko ju rafet yàlla waxoon na ci alxuraan ji ne lu baax ak lu bon mënuñoo yem bu fekkee dañ laa tooñ def la lu bon yow fexeel rek toujours bay fay ak lu baax yow del def lu baax rek bu fekkoon ne ki nga xam ne moo la def lu bon loolu sax sa noon la dafay mujjee ko sopp soppeeku nekk sa sa sa sa sa waay waaye nag loolu ab cër la boo xam ne ñi muñ kese ñi mën a muñ ab cër la boo xam ne ñi am cër ci yàlla ñoo ko mën a am yàlla ba muy melal yenentam bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ko melalee jikko ju rafet wa innaka la ala xuluqin azim ñu dégg ko l'islam sax li ko tax a jug dëgg dëgg dëgg mooy matal li nga xam ne nii moom mooy jikko yi abu hurayra solo na ko ci hadis boo xam ne yenent bi moo ko jàngale ne dañ maa yónni ngir ma matal jikko yu rafet yi kon nañuy xoolaat suñ jikko yi te jikko yoy buñ ko waxe moy jikko yo xamne l'islam dañu ko jangal sa digënté ak sa borom sa digënté ak sa bop sa digënté ak mbooleem nit ñi sa digënté ak mbooleem bindé fi yalla bind yépp kon l'islam lu bare bare bare lañu jangal dana ci jukki lén rek lo xamne mënu mën jëriñ ñun ñëpp l'islam jangal nañu ñu nekk ay julit dëgg julit yo xamne dañuy am confiance go xamne du dengi dengi ci suñ borom subhanahu wa taala nekk ay jullit yoo xam ne suñu lépp dañ koy jébbal borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moom moo ciy dogal nu mu ko soobee ñu wakkirlu ci moom suñu mbir yépp ñu bàyyee ko ko moom borom bi subhaanahu wa ci cofeel ak ragal nag amul kenn ku ñu wéeru ci moom ku dul yàlla amul kenn ku ñu dellu ci moom ku dul yàlla ndaxte moom rek moo ñu mën a sottelal suñuy mbir yépp loolu lislaam nañu koo jàngal nañ ciy bàyyi xel lislaam dafa ñëw jàngal ñu ñu war a nekk ñoo xam ne dañoo jub kocc ci ni ñuy gisee àdduna yoon yi ñuy jaar dafa war a nekk yoon yu jub kocc ndax jub lu war la ci bépp mbir nag ci bépp mbir nag ci lépp looy dugg jub da cee war ci lépp looy xalaat jub da cee war ndëng moo baaxut kon nañu fexe jub ci lépp parce que l'islam dafa ñëw ngir jàngal ñu loolu jub sax ci suñu bopp jub ak ñeneen ñi jub ci yeneen bindeef yi ndaxte jub lu war la l'islam loolu lañu koo jàngal l'islam dafa ñëw jàngal ñu ne dañoo war a nekk ñoo xam ne dañuy xalaat nekk ñoo xam ne ñu yeewu lañ nekk ñoo xam ne suñ xel yi dañ koy utiliser mais itam nekk ñoo xam ne ñu am culture lañ nekk ñoo xam ne ñu muus lañ dañu xalaat ci mbindeefu yàlla yi di xalaat ci lépp ndaxte yàlla dafa waxoon ne rabbana ma xalaqta haza batila subhanaka faqina azaba annar yàlla li nga bind nii yépp bindoo ko ndax ay caaxaan tudd nañ sa sell yàlla nag ñu musal ci mbugalam safara kon yàlla ñu yàlla musal ci mbugalam safara l'islam dafa ñëw di jàngal ñu ñu nekk war a nekk ñoo xam ne fu ñu toll dañoo war di jël ay initiative yoo xam ne initiative yu baax la sans ñuy déngi déngi initier lu baax loo xam ne dafay tax société bi di avancer dafay baax ci ñun ndaxte ñun ñëpp xam nañ ne fan yi dafa néew dund gi yàggul te dee mu ngi ñëw kon nañuy initier lu baax loo xam ne ëllëg dañ ko fii bàyyi dañuy initier yi lu baax loo xam ne ëllëg bu ñu taxawee ci suñ kanamu borom du ñu rus yonent bi waxoon na ko benn sahaaba ne ko bëri lal looy sujuut ndaxte heure boo sujuutee benn sujuut yàlla dana la yëkkati ab daraja mais dana sippi lenn ci say bàkkaar kon l'islam dafa ñëw ngir def ñu ñoo xam ne dañuy initier dañuy jël mubaadara l'islam dafa ñëw jàngal ñu ne fu ñu toll dañoo war di yokk ci lu baax suñ lu baax li dañ koo war di yokk waruñ koo sàggane toujours dañoo war di yokk lu ci lu baax foo dem seconde boo fa am rek fexeel di yokk ci lu baax say tiyaaba na fa yokk mais bu fa jëlee bàkkaar bu fekkee jëlee nga fa na nga fexe ba tuub ko ndaxte tuub yàlla dana ko nangu feek nekk di xar bu fekkee ne kuy rafetal nga rafetal googu noonu boo ci boo ciy dolli leer la lay yokk bu fekkee ne ay bàkkaar nga doon def bu fekkee ne da nga kaa tuub yàlla da lay sippil bàkkaar yooyu noonu ba mu jeex tàkk ndaxte yàlla nee na innal xasanaati yuzhibna sayyi'aati dhikra dhalika dhikra lidh-dhakirin boo defee lu ñaaw toftal ci lu baax lu baax loolu dafay far lu bon la nga defoon ba mu set wecc loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy fàttaliku ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy def lislaam dafa ñëw ngir jàngal ñu ne ñoon dañoo war a nekk ñoo xam ne fu ñu fekk ñu ngi ci jaamu yàlla mais nag dañ ciy digg doomu duñ teg suñ bopp loo xam ne attanuñu ko ba mu ñuy jural yokkat ñuy bàyyi lu baax loolu nga xam ne ni moom lañ doon def te li ko waral moom mooy ëppal ak jéem a def loo xam ne mënoo ko l'islam dafa ñëw ñu jàngal ñu pour ñu nekk ñu digg doomu boo commencé lu baax aussi nga continuer ko te doo ko bàyyi l'islam dafa ñëw ngir jàngal ñu ñu nekk ñoo xam ne dañuy sax ci lu baax lépp loo xam ne commencé naa ko ci lu baax dootuma ko bàyyi du ma tayal ba bàyyi ko du ma sàggan aussi itam ba bàyyi ko du ma mel ni ñi nga xam ne xasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun dañoo dem ba lu bon li moom moo tax seen xol yi nekk xol yoo xam ne dafa ñuul kukk ñu bàyyi lu bari loo xam ne dañ ko doon def ñu mujj soppeeku nekk ay fase kon li ñu sàkku ci ñun mooy ñu sax ci jaamu yàlla ba dee dikkal ñu hatta yat ci yekkal yaqin lislaam ñëw na ngir ñu jàngal ñu ñu nekk ñoo xam ne dañuy topp yenent bi sallallahu alayhi wa sallama sàmmanteeg li nga xam ne nii moom mooy sunnaam ak i teggini sunnaam ndaxte yàlla moo ko wax ci alquran ne wa man yuti ar rasul faqad ata allah ku topp yenent bi topp nga yàlla ñun dañoo war a nekk ñoo xam ne dañuy sàmmanteeg li nga xam ne nii moom mooy sharia sans dengi dengi sans hésitation ñu jébbal suñ bopp yàlla ba mat sëkk innama kaana qawla muminina ida duu ila allahi wa rasulihi li yaxkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na jullit dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne buñ ko wooyee ne yàlla moo wax lii yenent bi moo wax lii du ci teg baat danaan dégg na topp na kooku mooy vrai jullit yàlla lan la ci teg mu ne ulaika humul muflihun ñooy ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo texe kon kenn ku nekk ci ñun na xam ne yàlla teguñu lu ñu àttanul li ñu teg ñépp lu ñu àttan la te lu baax la ci ñun te loolu moom moo ñuy texeel lislaam dañuy jàngal ñu sori lépp loo xam ne bidaa la ndaxte bépp bidaa réer la te lu baax lépp mu ngi ci alquranul karim ak sunna yenente bi salallahu alayhi wa sallam yàlla waxoon na ne wa anna hada siratu mustaqiman sirati mustaqiman fattabiuhu wala tattabiu subul fatafaraqa bikum an sabili sama yoon waa ngi nii mooy yoon wu jub bi bu leen topp ñall yi ndaxte bu ngeen ko bu ngeen ko toppee da ngeen tàqalikoo bàyyi sama yoon wu jub wi kon nañ topp li nga xam ne nii moom mooy lislaam lislaam daf ñoo jàngal nañu nañu moytu lépp lu bon ak li nga xam ne mooy topp ci lu bon lu bon boo ko defee rek dana am yeneen yu ci topp kon lépp loo xam ne day waral lu bon lépp loo xam ne dañuy yóbbee ci lu bon nañ ko moytu nañ ko sori ndaxte boo ubbee bunt wu bon ñeneen ñi topp ci yow ñu noonu topp ci yow bàkkaar ñu def yow da nga am yow parce que yow yaa ubbi bunt bu bon boobu noonu ba nit ña mën caa jaar ba def loolu noonu kon bàkkaar boobu day sax di ànd ak yow ba yowmal qiyaama te yàlla nañu ci yàlla musal yowmal qiyaama nga ñëw ànd ak ay doju montagne yoo xam ne lépp ay bàkkaar la bu ko defee borom bi subhanahu wa taala li muy def rek moom mooy dafa maandu da lay dugal fa nga xam ne fa la bàkkaar di dugal boromam yàlla nañ ci yàlla musal ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu musal ñu mbokk yi gannaaw bi subhanahu wa taala julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu continuer rek li ñu lislaam jàngal lépp mënuñ ko wax ci benn bés mënuñ ko wax ci benn xutba waaye dana am yenn yuñ ci tudd rek comme ni xutba bu njëkk bi lislaam dafa ñëw jàngal ñu ne ñu dañoo war a nekk ñoo xam ne dañuy woote jëme nit ñi ci lu baax di dimbalante ak société bi ci njekk ak mbaax ak ragal yàlla ak teraanga ci méthode boo xam ne méthode ba mu gën a jekk la ñuy jëflante ak ñoom jëflante bu teey kon nañu jëflante ak nit ñi jëflante bu teey loolu la ñu lislaam jàngal l'islam dañoo jàngal ñu nekk ñoo xam ne dañoo war a équilibré wu nekk ñoo xam ne dañoo am crédibilité nit da ngay am crédibilité l'islam dafa ñëw ngir jàngal ñu loolu bu ñu nekk ñoo xam ne dañuy wax te suñu wax duñ ko jëfee bu ñu nekk ñoo xam ne dañuy digal nit ñi lu baax ba pare di wuteeg li nga xam ne nii moom la ñuy digle ndaxte loolu bàkkaar la ñaaw téef la te ku koy def da ci am yar borom bi subhanahu wa taala ëllëg kon nit ñi mënuñoo jël sa wax bu fekkee ne yow li ngay wax dafay wuteeg say jëf bu fekkee ne xam nañ ne xam nañ ko bu baax a baax kon lislaam dafa ñëw jàngal ñu ne ñun dañoo war a nekk ñu wóor ñu maandu ñu wóor ba pare maandu ndaxte contraire bi dafa bokk ci melokaanu mooy wor dafa bokk ci melokaanu naafeq te yonent bi yàlla lan la ko melalee wala sax ca jamonoy jaahile yéefar yu bon ya lan lañ ko doon tuddee al amin ñu tudd fii dëgg toujours naan muhammadul amin amin googu noonu fan la jógee ñoko nous doon dit yonent bi al amin moy ku wor ki kon nous. da ngay wor waro nek ko xamne ne ku woré di ngay doon julit da ngay wor parce que ñun dañu war di roy ci nous, bi te nous, nous, ku wor la nous, te nous, bi melal na nous, yi ne ñom nous, na ci seen jikko dañu kon nañu moytu l'islam nous nous, ñun nous, wara a ño nous, nous, dépasser dépenser dépenser ci liñ gën a bëgg ci suñ alal ak ci li gën a teey ak ci lu gën a baax loolu li muy feddali mooy bëgg gi bëgg lislaam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy julli ñi loolu lay feddali ak dimbalante gi nga xam ne fas yéene nañ koo dimbalante ak société bi ak li nga xam ne nii war nañ koo taxawee ci seeni yitte ak ci seeni mbir ba pare day nocc génne ci suñ xol yi lépp loo xam ne bëgg alal la ak égoïsme goo xam ne égoïsme mu bon la te yàlla waxoon na ne du ngeen am njekk lan tanaalul bir la mënu leen a am njekk de hatta tunfiqu mimma tuhibbu dudul ne da ngeen na joxe ci li ngeen gëna bëgg ci sen ci sen alal yi loolu noonu moom mooy li nga xamne sax mom lañ mom li ngay joxe moy li ngay mom mais li nga xamne ne ko fe bàyyi mom momato wala li nga lek mu res yu lay deme non mais li ngay joxe nak mom mo ci ëpp parce que da nga koy fekk ci borom bi subhanahu wa taala mu fayee l'islam jangal nañu ne togn dafa haram kon waruñoo jalgati ci ak ben doomu adam mo xam muy julit wala mu nekk koo xam ne du jullit moo xam ci boppam lañ ko jalgati wala ci alalam wala ci deretam yenent bi nee na jullit ñi jullit dëgg-dëgg mooy koo xam ne jullit ñi dañoo mucc ci làmmiñam ak loxoom loolu lislaam dañu koo jàngal lislaam dañoo jàngal dañoo war a nekk ñoo xam ne dañuy màggal lépp loo xam ne ormaay jullit ñi la dañ ko war a fonk respecté ko ormaay jullit ñi jox leen considération yërëm leen nekk ñoo xam ne duñu leen toroxal mais dañ leen di teral yàlla yàlla subhaanahu wa taala melaloon na yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko yow mii kat raufun rahim nga ku ñëweti nga te ku lewet nga te ku bëri yërmaane nga ci jullit ñi kon ñun nañ fexe mel noonu yonent bi bañoon na ko ba bu doon julli bu doon julli da doon woyefal bu déggee xale buy jooy mu digal ko mbooleem imaam yépp ne nañu woyefal ci seen julli buñ dé fekkee ne ca julli ga am na koo xam ne dafa néewu doole wala ku feebar wala mag wala borom aajo wala borom aajo te yaakaar naa léegi ñun ñëpp ay borom aajo lañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mooy suñu royuwaay kon nañ koy roy ci loolu bu ñu tooñ kenn bu ñu wuruj kenn bu ñu lor kenn ci deram ci alalam bu ñu bañ kenn bu ñu iñaanee kenn bu ñu bàyyi kenn ñàkk ko dimbale ku ñu gis ne war nañ koo dimbale nañ ko dimbale bu ñu fàtte àq kenn nañu delloo nuyoo fu ñu fu ñu fu ñu fu ñu fekk ku feebar ñu dem seeti ko bu ñu deelee ñu dem jaale ñu dem topp ci janaasam jullit boo xam ne génn na àdduna ñu gunge ko ba ci armeel ya bu ñaanee buñ ko mënee ñu nangul ko ñaanam may ko li nga xam ne ni moom lay ñaan ti bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne nangeen nekk ay jaamu yàlla di ay mbokk wa kunu ibadallahi ixwanan jullit jullitay mbokkam bu mu ko tooñ bu mu ko gàcceel bu mu ko toroxal ne nañu ragal yàlla nag ci xol lay ne daal di junj ci xol bi ñetti yoon mu ne doy na ab nit ci lu bon rek muy xeeb moroomu jullitam lu bon doy na rek ci yow ngay xeeb sa moroomu jullit bépp jullit ci moroomu jullitam araam na ci moom deretam alalam ak deram kon loolu yépp lislaam nañu ko jàngal ñu war ko taxawee lislaam jàngal nañu dañoo war a nekk ñoo xam ne symbole wala composant lu baax lañ ci société bi da ngay nekk koo xam ne yow fu ñu la fekk yaa ngi ci lu baax li mais bul bokk ci groupe boo xam ne fu ñu leen fekk ñu ngi ci lu bon li ak ñi nga xam ne toujours ñu ngi tasaare li nga xam ne ay rumeur yu bon lañ li yoo xam ne dafay yàq société bi yow daal fu ñu la fekk na nga fekk nañ la fekk nga nekk ci loo xam ne lu baax la ak kuy doxal lu baax loolu la ñu lislaam jàngal inna alladina yuhibuna an tachia alfahisata fi alladina amanu lahum azabun alim ñi nga xam ne dañoo bëgg tasaare lu ñaaw ci jullit ñi ñooñu nañ xam ne mbugal mu tar mu ngi leen di xaar kon képp ku nekk ci loolu nañ ci génn ba set wecc te mbugal moomu fi dunia la wala axira adduna ak alaxira lislaam dañoo jàngal ñu war a nekk ñoo xam ne dañuy muñ lépp loo xam ne métit la kuñu ko def nañ ko muñ te ko te jéggal ko parce que loolu l'islam dañu ko jàngal wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al umur képp ku muñ lu bon luñ la teg wala lu dis luñ la teg wala lu métti loolu noonu tiyaaba ju rëy rëy rëy nga ciy jëlee fekkee nag bu ceeb rawate na nga boole ci ak jéggale waaye nag loolu ñi ko mën mooy ñi nga xam ne ay kilifa lañ ñi nga xam ne ay ngand lañ ñoom ñoo mën loolu l'islam dañoo jàngal ñu nekk ñoo xam ne dañoo war a dimbalante société bi nekk ñoo xam ne dañoo war a nekk ñoo xam ne composant lu positif lañ groupe positif bi ci la foofu la ñu war a bokk groupe positif bi nga xam ne dañu diri àdduna bi jëmee ko ci lu baax wala xëcc àdduna bi jëmee ko ci lu baax ñoo xam ne fu ñu leen fekk ñu ngi participer ci def lu baax participer ci fecc aajo yi ñi nga xam ne dañoo soxla seen kem kattan l'islam dañoo jàngal ñu war a nekk ñoo xam ne ñu baax lañu ñu maandu lañ diggante doomu aadama yi innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum jullit ñi ay mbokk lañ na ngeen yéwanal seen diggante l'islam dañoo jàngal ba tey ne ñun dañoo war a rafetal jëm ci jigéen ñi ndaxte jigéen ju baax alal la joo xam ne amul morom mool la bu barkeel ci société bi yeneen bi waxoon nañu ne ku gën ci xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay ñoñam ci ay jigéenam te man maa gën ci samay jigéen kon man maa leen gën kon ku bëgg a mel ne yeneen bi da ngay baax ci baax ci jigéen ñi l'islam jàngal nañu ñu nekk ñoo xam ne dañoo war a dimbale suñu famille taxawee seeni mbir dimbale leen jàppale leen ci mbooleem xeet yépp bu ñu waxee dimbale leen nag waxuñ nga leen di dundal kese loolu ci la mais yar leen teg leen ci yoonu ñaari mool yooyu noonu mool yoo xam ne la foofu fu la fekk danga ko war di toppatoo yar leen ci ngëm yàlla yar leen ci muñ yar leen ci li nga xam ne nii moom la lislaam jàngale ba pare nag di leen dundal parce que dañuy comparer dundal gi nga leen di dundal dépense bi ngay joxe ñu ngi koy comparer ak bu fekkoon ne da ngaa fekkee xare boo xam ne ci yoonu yàlla la nga génne alal joxe ko ni muy mel tiyaaba jooju noonu ni muy mel yooyu dafay mel ne dépense bi ngay joxe chaque jour sa kër noonu la tiyaaba ji mel comme ku dépensé ci yoonu yàlla ci xare kon ñi nga xam ne fekke wuñ badar fekke xare yi nga xam ne sahaaba yi dañ ko doon dépensé ñi joxe dépense chaque jour nañ jàpp ne ñoom ñu ngi dépensé ci xare yooyu noonu nga xam ne yenent bi doon na ko doon na ko xare kon l'islam jàngal nañu ne dañoo war a wuyu lépp loo xam ne ak dëkkandoo la ndax ci jëkkandoo ci la lépp di commencé te yonent bi sallallahu alayhi wa dañoo diggal ay yooni yooni yoon ne nañuy sàmm ak dëkkandoo relation sociale yooyu noonu ci la lépp di dépare pour mun a jëm barkeelal ñu ci suñ société bi yëpp après adduna bi yëpp ñuy ànd ak ñoom ci seen i bànneex di ànd ak ñoom ci seen i naqar lislaam dañoo jàngal nañu dañoo war a baaxee suñu waajur mu góor ak bu jigéen ndaxte ñépp xale lañu woon waajur yi ñoo ñoo leen jàppale ci lépp te xooluñ ci woon daara kenn mun ta fay say waajur da ngay jéem rek mais mënoo koo fay yàlla ba mu waxee ne xadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu lan la ci teg wa bil walidayni ihsaana yàlla dafa dogal ne bul jaamu kenn kudul moom mais na nga rafetal jëm ci say ñaari waajur kon nañuy toppatoo waajur yi di rafetal jëm ci ñoom deuxième daayira bi ci foofu noonu ci lislaam li ñu jàngal ba tey mooy ñuy toppatoo li nga xam ne nii mooy suñuy mbokk sàmm suñuy mbokk ndaxte mbokk momit lu for la l'islam jangal nañu ko ne dañ ko war di topato kon yi yëpp l'islam dañu ko jangal ak yenen ak yenen ak yenen mais yi rek buñ ko jappé seug ci dañu nek nit parce que comme ni nga waxé ci commencement bi nit moy kan moy ko xamné da nga nek jaamu yalla jubóog sa borom nek ko xamné aussi tam da nga nek manfaa njëriñ ñeel société bi yépp heure bo fi juggé nit ñëpp danañ xam ne jóge nga fi mais amna ño xamné heure buñ fi juggé dañu melni benn bu dé rek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 أبى الله أن أصوم إلى غير شيخنا إمامهما ميزاك أحمد التجاني